Babacar Seye moo ngi juddoo si dëkk bu tedd bii di Touba Mbacké ci bi muy ndaw la ko ay waajuram jëloon yóbbu ko ca daara daara jooju nag ma nga nekk ca ginnaaw gi ginnaaw ginnaaw foofu nag def na fa lu tolloog fukki at mokkal fa alxuraan gone ga bind fa ay kaamil yu bëri lu tolloog juróom-ñaar jàng fa ay téere xam-xam yu bëree bëree bëri rawatina téere yoo xam ni Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba moo ko bind jàng fa tamit majalis ci atum ci la gone gi Touba jëne ku jàngul génnul ku xuloog moom moo tooñ boppam ci atum ci la Babacar ubbee daaray alxuraan foofu sa daaru tanzil dafa jàngale alxuraan ginnaaw bi mu dajalee as ci la Babacar jàpp ne ndaw la tollu si digg dooleem lu ko fitam xañun bu kom xelam xañ ci noonu ci la Babacar duggee ci mbirum commerce waaye foofu mooy taxu koo demee noonu ci atum ci la Babacar delloo ca daara ja di jàngale alxuraan gëm ne ndaw lu bëgg tekki rek lu entreprise buy yëngu ci mbirum transport ak ay boutiques yi nekk ci biir université bi di jaay ay produits di taxawu étudiants yi ci yoon wi mu tegu Babacar Seye jàpp ne góorgóorlu lay taxa doon góor te di jéemu du ko man ba tax na mu dem jàng informatique ay livre di di jàngal boppam ci atum mu volontaire def BFM jël troisième di sant en tant que autodidacte jamonoy dox Babacar di xalaat ba mu décidé def baccalauréat am moyenne 1371 centre ginnaaw loolu lépp Babacar cursus yi français anglais arabe espagnol ak chinois di animer ay conférence biir université ginnaaw njàng bi Babacar Seye des biir Dakar gérer ay société di jàngale tamit technique création entreprise ci atum ñu proposé ko contrat Nations Unies Babacar Seye wan ko ginnaaw jàpp ne mën naa gàllankoor yoonam ginnaaw gi mu taxawal Globun Consulting ak TQP bu Sarr ci atum 2020 Babacar Seye taxawal mouvement citoyen duppi ko mën naa nekk Babacar